vous voulez dafa mel ni benn canal de communication bi nga xam ni opportunité opportunité la bu ñu jox africains yi pour ñu jël la parole wax ñu ñan ñooy africains yi ak lan mooy Afrique loolu moo tax ci biir événement bi dañu prévoir ay master class pour yokk xam-xamu ndaw yi nga xam itam dañ leen woo pour ñu mën a saisir ay opportunité te Afrique c'est un continent jeune jeune parce que en économie tey aujourd'hui mën nañu wax ni Afrique moo nekk ci ginnaaw tout à l'heure wax na ko rien que qui engendre plus de 500 milliards de dollars par année, l'Afrique n'en reçoit qu'un pour cent, ce qui n'est pas normal. C'est une première édition mais ñun mise wuñ sur la quantité mais plutôt sur la qualité n'est-ce pas il vaut mieux avoir par exemple 1000 jeunes yu ñëw qui sont prêts à investir à devenir peut-être des des entrepreneurs que un million de jeunes qui viendront juste en tant que spectateurs